jàpp nañ li ñu war a soppi ci suñu biir mooy suñu doxalin mooy suñu ngëm-ngëm ñu fexe ba ger jóge fi parce que tey kenn ku jóg di dem ci benn service di wuti kayit bi gën a tuuti da ngay fexe gànnaayoo 1000 francs wala mille francs ndax bu ñëwee joxee ko nga am li nga bëgg jël fu mel ni Mbuur def ko une région parce que capacité ressources yi nga xam am na dans le département de Mbour kenn la wax dafa léegi tourisme on autre parlera de pêche on parlera de l' agriculture on parlera de l'élevage ainsi de suite suñu ko gérer ni ñu ko war a gérer le département de Mbour la région de Mbour war Mbour waaye war na ci mën a gis seen bopp bu baax jàpp nañu une région comme Casamance ni ñu ko daggee def ko trois régions dara waralu ko lu dul politique dara waralu ko lu politique boo demee fu ma ne Tambacounda nga dagg région Kédougou génne ko Kédougou am nay ressources mais Tamba amul dara boo demee tey fu mel ni Sine Saloum ñu dagg ko def ko ay régions yu dul jeex boo demee Fatick tey euh, lan moo fa nekk comme ressource am na tout bi am na pêche boo demee Kaffrine lu fa am y or bu ñu amee la région du Sine Saloum comme dama nekkoon démb ak bërki démb dina am solidarité entre les différentes localités ba nga xam ne région boobu dana mën a développer